lu doy war ba egg ci lol mo am ci morgue bi nga xamne mo nek ci armel bi solo juma bu Touba ne ben soxna su am temer ak fukki at ak juróom ben mo genn aduna niki demb gannaaw bu mu fanane ci morgue bi ay set seetlu ne dafa am ay yenn ci ay cëram yu nga xamne danu ko dag ñoom nak nenañu li ñuy wax amun ci sikki sak tay ëllëg waxi nopp mako yoron diko di ba yalla dogal tembu ginaaw timis la nelaw bi mu nelawee ma defar ko xam ne xale yi réeragunu may bañ ñu bañ a reer daal ma dal di koy jekkal ba mu jekk jekkal cër yëpp dal di koy muur noonu bàyyi ba ñu reer ba pare ba sama mag bi julli timis ba euh, julli gee ba pare moo ma dem ni ko kaay xool soxna si mu ñëw ni ko mu ni ma aayoo ah, ko maire bi moom daa noppalu lii la waaye maire bi moom man ba ma juddoo ci kanamam mooy sama magu yaay musuma gis mu am góom musuma koo gis léegi nag nee na dagg nañ sikkim bi dagg nañu ci baaraam bi tànk yi dagg ci baaraam bi loxo yàlla seede na ni amu ci da koo da koo amul sax mm-hmm. man maa ko jekkal góor ñee ko jël sama kanam ñëw indi ko ci fii denc ko fi mm-hmm. teg ko fi ci guddi gi mm-hmm. ñibbisiwaat ci guddi gi léegi nag bi ñu ñëwee lan ma ni ndax maire bi dafa amul góom man leen ma gisuma ci góom ñu expliqué ma man leen loolu moom mënta nekk su ko daf ko amul amu ko pour sikkimam biig tànkam yi amul góom ci sunu maam mu wàccu liggéey bii ci guddi ñu indi ko fi bi ñu ñëwee ñu dugal ko ci margo bi bi noo xëyee ma ñëw di ko génne man maay ki jàpp ci palaat bi biñ koy génne ñu teg ko biñ ko jëlee ñu jël ko ba andi ko fi ñu koy sange ñu teg ko fi ci laa muri kanam gi di ko siyaare ma gis sikkim bi ñu joxati ko ma ñëw ci nijaay mi nga xante ni mooy doomam moom moo mujjee nekk ak moom ma ne ko waa nijaay sama maam dafa dafa am ab góom mu ne ma déedéet kon de xaw ko kon de waxuma ko mané ko ah maam de sikkim bi xamna yi gañu na ci. bima ñëwé ma def loolu may nit may ne ci enquête bobu ñi doon sang bi nu axé ma mëri leen ma li xamna naa fii dafee gaañu woon ndax ma leen doon jappalé pour ñu sang ko. ñu ñu la dem ma li mu na ma mo su fekkente ni bokk na li ak li fi daan am. so démé ci loxo yi di nga di nga gidé gis ñu dag ko. ñom ñu la wax ñu won sang ñi doon sang ñu wax ma loolu. mané ko né dé loolu loolu doy waar loolu. ci laa muri loxob ndijoor bi gis juróomi baaraam yëpp di naaj ma dem ci tànkub ndijoor bi gis tànk bi di naaj ma ñëw muriwaat euh, loxo bi loxob càmmañ bi gisit moom muy naaj la ma ca gën a metti nag mooy loxo bi nga xamante ni dañ koo takkan moom ba mu yegg niñ ko takkee ni ñu ko ni ko takkee fekk mu tekké fi na ben loxo bi dafa lemu té biñ ko dogalé dañu takkan dañu dañu dañoo tàllan cër yëpp takk ko waaye loxo bi mom da dafa fekk dafa dafa dafa lemu lañ njëkk xana moy ñu janoose ko ñu fajj ko parce que li mom lu jara fajj la ndax waxuma la ji jëm jëm ji nga xamanteni mom la yar dogal mom la dogal bu wacc ci mom ndax ko xamanteni 1904 la juddu won boy séti atam mu né ci téeméeri at ak fukk ak juroom benn jeexan tàkk ci ci Cheikh wax lu mel ni waru koo mën a daal te fajunu ko rawat nag dëkk bi nga xamante ne mooy dëkk Serigne Touba bi ñu war koo téye sellal ko mu am ci kon mi mbir day mbir mu jara topp day mbir mu jara saafara. góor gi nag moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo yilif morgue bi mi ngi leeral ne loolu daal ay wax la yu nga xam ne ba léegi mënu ci am ay firnde te li mu jàpp mooy góom yi mu gis ay góom la yu nga xam ne yàgg na ci soxna si. mi day maanaam lu ñu bett rek ndax bi ma xëyee comme ni ma daan liggéeyee man comme maay responsable te mbir mi day ah, dafa doon loo xam ne nii maanaam yombut ñaari morgo ñoo fi nekk morgo góor ak morgo jigéen bi yàlla dogalee ñu ñuy liggéey ni may liggéeyee mooy maanaam képp koo xam ne da ngaa aye garde dama lay jox caabi pour morgo góor ñi jox la caabi pour morgo jigéen ñi su fekkee yàlla dogal na maanaam nga fanaanee liggéey bu bët set soo xëyee maanaam dangay ngay ŋàbb sa caabi ubbi bunt bi ànd ak man ubbi turwaal yëpp fu fi néew nekk ma teg ko bët xool ba xam nan la fanaan ba néew yëpp daj góor ak jigéen su ko defee su ko defee ñu commencé liggéey yow nga libre dem bi ma commencé libare di di jox ñuy sang ñuy sang tey nag bi ñu xëyee ah, comme nekku ma fi am na ku ma ko booyaloon su ma xëyee te gisoo ma eh, wanal kooku néew yi kooku moo ma woo ma ñëw mu ne ma man de numéro 4 ci jigéen ñi am na fa fu mu fa dem foo xam ne nii gis naa fa benn néew am na gaañu gaañu ma ne ko ah mu ne waaw ma dal di jóg waaxu dem ci morgue jigéen ñi ubbi numéro 4 xool euh, néew ba mu am benn góom waaye ma ne ko ah bii góom daal du tey ndax góom góom bu doon tey du wow ba pare ci kaw góom bi am dëtt li wër góom bi commencé ñuul. boo bëggoon ah, nekkul ne tey la dagg damaa yaakaar da ko fi indaale dal di ubaat ñëw toog di continuer sama liggéey biñ demee ba nga xam ne nii maanaam uh, ubbi nañ ko pour ay bokkam yooyu ñu ñu toppatoo ko ci la ci la ci la ko teg ci kaw lal bi ñu ne maanaam néew bi lii dañ koo dagg may leen ah buñ ko dëggee de xam naa du tey ndax bii góom déglu rek bii góom du tey ci loolu ñu ne loxo yi am nañ xosi xosi tànk yi am nañ xosi xosi ma xoolal door xoor baaraamu loxo bi gis gis euh, gis gis mu am xosi xosi di naaj ma xool tànk yi gis mu am xosi xosi di naaj waaye lu ci nekk xosi xosi la nekkut lu ñu tagg yóbbu amu ci fenn foo xam ne nii am na cër bu ñu fa dagg yóbbu te góom bi niroo góom bu ñu dagg góom boobu du tey góom boobu ci kaw gi commencé na weex am dëtt góom mënuñu koo dagg biig mu nàcc biig fer biig am dëtt tey ci suba kooku moom mun a nekk te 11 heures minuit la fi néew bi ñëw lii moo doonoon problème moo ne moom góor gi kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko soxna yi nga xam ne ñoo waroon saytu soxna muumi laata nu koy jëbal boromam wet dinañu ko ndax te ñoom li du wax leer na soxna si moom gis nañu ne doon na nàcc te it am nay baaram yu nga xam ne jot nañu ko dagg. àndaat bi ñu woo ñu ñëw ay bokkam lañ fekk ci biir kenn ki njëkk a muri daal ma soxna si maanaam mu ne ma diida mooy dañoo jaaxal ndax biñ koy fat nekku ci woon te biñ koy génnee ci machine bi. lii de cee ne muy fii dagg sikkim bi mhm. ak baaraam yi mhm. ma ne ko waaye yéen bi ngeen koy indi nekku ci woon mu ne waaw ma ne ko nuy dey buñ leen fi fekkul woon sax dañ leen di woo ndax lii dafay faral di am te nun ñooy waajal nun jigéen ñi ginnaaw ñooy waajal lii tax na bala ñoo laalati néewub kenn dañ koy woo mu taxaw mhm. ndax ay jigéen doomu lañ dugaluñ génnewuñ xamuñu ci machine la xamuñu fan la te yéen bu ngeen dikkee na amu ci ah bu waxee léeg-léeg ñu ne kon fi jigéen ñiy sang fi la ame te nun du masa ñaaw mukk mukk mukk mukk mukk ba ñu xalaat ko wala ñu jortu ko wala lenn liggéeyal sañ Tuubaa moo ñu fi indi bu ñu ci gisee luñ ñu xamut danañ woo ay bokkam ji ñu ñu kenn waaye nu it danañ setal suñ bopp waaw ñi ñëpp fii moo ma doon sotti la kii moo doon tànq ndox di andi mm-hmm. baaraam bi moom doon na naaj baaraamu nday jor la xom baram baramu dey bi dal waaw sir yi mom bu demul won sax boko ko tang ci gis deret wax deug yalla ah yalla mo xam don na nacc dal yalla daal a xam don na nacc waaw sikim bi fi mo dem waaw sikim bi da mom biñ commencé sang da commencé nacc waye mom fekkuñu ko won muy nacc da xawona melna lu wow waaw waye loxo mom wax deug yalla do na nacc waaw lool la lañ fi gis fi am de fi am de wax deug ndax ñaar ñu dekk guuy mbind kenn ki ëlya kenen ki ci des gaaraatu dëru kenen ki ci dess Dakar la dekk kenen ki ci dess Kaolack ko xatam bam ñu bañ borom taxawé ne li neeku ci woon manako kañ ngeen ko andi mu ne ci guddi manako neeku ci woon mu ne wa manako yow ndax ya ko andi wala lan mu ne mako andi biñ koy duggal mak ñoma and ànd di amu ci won seeni borom nak dañu ñew margo ki mo leen andi Ambilas, ta borom nanguwut ta fanan ma leen dem leen bu bët ma top tok mu ko kon léegi bala nga ci wax dara lu leer dangay woo ña ko yoro won ndax amna ci wala amu ci bi mu wo soxna sa mu ko man de mako dogli waye dara nekul won ci mom mu ne ko sikkim bi amul won dara lu ci dag ko déedéet amul won dara lu ci dag mu ko sama yaay dar wopul ba daray dag ci mom daa ndogo ba nopi dem borom a ngi taxaw boroom a ngi taxaw nun bala ñëw summi benn néew borom day taxaw waaw ndax nag ay jigéen lañ nun ay jigéen lañuy ñuy waajal nun ay jigéen la ñuy waajal waaw toppul mag toppul ndaw daf fi am daal waaw wax dëgg xale yu ndaw ndawaan yi moom amu ci waaye mag ñi moom am na ci wax dëgg yàlla xaawoo waaw wax dëgg yàlla ndaxte nag àddina neexut te ay jigéen lañ boromi njaboot lañ waaw loolu la mu nekk ay kàddu yu waroo waaye njaboot gi moom fi mu toll nii taxaw na temm ci fexe ba nu indi ay leeral ci li nga xam ni xew na te dal ci seen maam ma police bu janatul ma wax ubbi na l'enquête ba tax na kon am na ku nga xam ne sax yóbbu nañ ko foofee ngir tàmbale li nga xam ni kon mooy seenub liggéey ndaxit day mel ni dëkk bu sell bii di tuubaa rawati morgue bi yenn saa yi lu mel nii dafay faral di am.